yeggalee fi yeggalee fi sama samay étude ba yàlla dogal ni ma duggee ci wow waaw waaw wës jàmbaar kon dama doon jàng comme bépp xale ni mu doon def rek jaar si jang jang arab jang école waaw noonu daal laa def ba virusu làmb dugg ma ni ma gën a duggee nag fii ma nekk ci yaraax xam nga ñun moom dëkku tefes lan nekk te dëkku tefes ku ko wax xam ni nga wax entraînement nga wax waaw ñu dëkk ñu nekk fekk suñuy mag yoo xamante ni dañ doon yëngu ci làmb muy mel ni ku mel ni Cheikh Diouf ak euh, Ousmane Fall yi nga xamante ñoo ngi koy ñaanal fee nga xamante fee la jëm yàlla na ko gënal fi mu jugee yàlla yàlla yool man dem ci kawam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu daan ànd ak ñoom ak di ba virus bi dugg mën naa ne daal làmb bii ñu nekk moo ñu yàqal suñu jàng daal yàqal ñu lu baree baree bare non man jàng naa ba dem naa ba quatrième dem naa ba quatrième waaw parce que làmb daal laa gënoon bëgg moo waral jàng bi teel a stoppé wu quoi. waaw bi may def ci mbër bi may lekk ci lii man doon naa def marieur waaw marieur bi ma doon def tamit fii nii mën naa ne làmb yi moo ma ko yàqal tamit ba ma arrêté woon ko xam nga jaar naa ci yu bëree bari mais xam nga rek làmb dafa fiir am na yu bari yoo xamante nii mënoo ko dëkk ko boole. soo amee combat da war dañuy concentré wu ci suñu combat ba xam ba nga xam ni après doo doo doo ko mën a booleek dara quoi moo tax day meer foo ko ñu bàyyi loolu ñu bàyyi loolu concentré wu ci làmb ji ndax xam na ni làmb ji mën na ñoo dara quoi. waaw làmb ni mu duggee si man parce que mën naa ni miracle la rek la ñëwee ci man par surprise la ñëwee ci man ndax man aw ma mboq buy bëre buy bëre aw ma mag buy bëri aw ma raq buy bëri aw ma nijaayu mbër sunu famille mën naa ne man maay première mbër boo xamante ni moo ko waaw xëy na mbiru yàlla la ndax fi ñu nekk nii tamit ñi même ñi ma doon àndal bi may nekk boo yëpp amul kenn ku ciy fooyee bëri ku si doon fooyee bëri man rek maa fi nekk doon fooy di fooyee bëri ba yàlla dogal ñëw ma doon mbër parce que ñi ma doon àndal ñu si bëri football lan doon ñoom football lan doon suivre quoi ñi ñooy si école de fubal yi ñi doon nekk si tournoi tournoi tom yi nga xamante ni moo nekkoon moo nekkoon képp ku dëkk Yaraax xam nga tournoi Tomi ñi di si nekk man moom ci booy séeréer yi nga xamante géej lan doon nekk su ma jàngee falaay laay wàcc teg sama saak foofu noonu di fowoon du bëre ba làmb dugg si moom après yi may ma fit ku si mel ni ñoom Cheikh Diouf Garga Mboos ni ma do ay ñoom Ousmane dem si yàlla si ñoom Saataala Mbay xam nga dooleel ma mooy bërëntu mbapat ci koñ mbapatu koñ yi ni mbapat fu mu am ay koñu jaarawaali ay yarax képp mbaxal montagne may dem foofu di bërintu mbapat ba yàlla dogal may génn di dem ay HLM ay garan Dakar di bëri ji foofu mbapatu ko ci daal ba après laa gëm ni lii su ma ko gëmee mën naa ci yegg fu sori quoi moo tax ñu gëm ko ba nekk ci nii. waaw parce que yomboonul nag dama doon làqatu doon bëre doon bëre parce que ñoom yëgoo bëggoonuñu sama bëre sa mbaawa fii la koy yëgee damay dem bëri ji mbabat ci guddi gi bëccëg gi ñu si mbedd mi la koy yëgee ñun ko sa doom ji da doon bëri démb moo jël lii moo jël saako ceeb bii wala moo jël lii après mu ma ni ma yow yëguma fooy bëre lu tax ngay bëre mu tere ma ko sama yaay tere ma ko après nijaay aussi ñëw waxtaan ak ñoom pour convaincre convaincre ko pour mu mën ma bàyyi ma nekk ci quoi ñu ne xale li mu nekk nañ ko si jàppale rek comme moom loolu la bëgg quoi après ci lan ma jàppee appuyé ma ci ba ma nekk si nii mhm. Mhm.

jour spécial lay doon si moo tax mënu ma ko du ma ko mës a fàtte sama baptême de feu du ma ko mës a fàtte quoi waaw combat bu neex la woon xam nga ñu ñëw bëri ci yàlla dogal ñu am ci ndam mu doonoon lu neex koñ bi ñëw ambiance bi koñ bi neex tamit neexoon trop na lu neexoon la daal. waaw parce que wës ku koy waxal leneen wala ku koy ci affaire wu naan wës fayewul bëre wala da nga koo fréquenté wul wala da nga koo xamul parce que ñi ma yar fii ñoom Cheikh Diouf xam nañ si bu baax a baax baax ñi ma yar fii ñoom saataala xam na ni bu baax ni man dama fooyee bëre dama koo bëgg wallaay azim làmb mën naa ni virus la virus la doon ci man quoi parce que mënoon naa ko see mënoon naa ko bàyyi dem seete leneen dem nekk ci leneen mais yàlla lu mu dogal si jaaw mënu ci dara ak bëgg-bëgg xam nga bëgg-bëgg bi moo ngi fi te xam naa ni telewuma ko mën naa foofu bu baax a baax a baax moo waral ni ñu am gëm-gëm ni lii lépp lu ci mbër waral a lekk wala mu am ci dan ko ci am incha allahu rabbi waaw. waaw bëri na douze combats huit victoire deux défaites yu leer ak deux défaites yoo xamante ni dañ koy laam-laamee waaw. dafa. waaw. waaw waaw non loolu loolu loolu xër bu ëpp la ko quoi ci nit ki xëy na nit soo amee confiance ci moom gëm ni booy bi ñoom ñoom ki man képp ku ma mere rek dama lay comprendre parce que nit soo nekkee ci gox ngay dem di uti nga ñàkk ñu mere la rek xamal ni kooku li mu foofu da ko mën na ko jàmbaar la te champion la moo tax su ma demee bëre ñu ma ñàkk rek nit ñi dañuy mer parce que waruma ñàkk non mënuma ko non parce que gars yi waruñu waaw waruñoo ñoom gëmuñ waaw parce gëmuñu ni waaw waaw ñoom li ñuy kaas mooy wë wës warul bëri wës warul bëri ji di daanu ñoom loolu lañ def seen bopp. moo tax su ma su ma demee ñàkk rek day doon événement lay doon quoi day mel ndax kenn du ko ci xaar heure bu ma daan surprise lay doon parce que même ñi may bëreel ñi may li heure bu ma demee si làmb di si heure bu ma daanoo ci làmb rek surprise lay doon quoi parce que kenn du ko foogee kenn du ko yaakaaree kenn du ko lii. moo tax day doon loo xamante nii day metti quoi waaw. Mhm. waaw làmb moom soo sa nekkee ñii dañuy bëgg ñii di bañ critique ci làmb mënoo koo bañ comprendre nga mbir moom même Cristiano bi nga xamante wala Messi mi nga xamante ñoo dàq fubal ci ñoo ci monde bi dañ leen di critiquer danaa leen mënuñu lii wala defuñu lii wala xamuñu dara wala lii loolu kenn mënu kenn mënu koo bañ mais ñun game bi xam na ni mën nañ ko foo bi lu nu mën la waaw mu doon lu metti mu defet moom ku ni ku ni méttiwul da koo dundul rek da xool yow mii supporter nga supporter benn équipe wala nga supporter mbër ñu gañe ko wala ñu nga supporter équipe ñu gañe ko jour boobu ni muy méttee si yow supporter bi lu ko lu mille fois la koy méttee mbër mi nga xamante nii moom moo ko dund waaw lu metti la moom waaw mais sant yàlla quoi ba yàlla xamante ni dañoo def ñu doon koo xamante ni ku gëm ndogal la xam nga ku gëm ni yàlla mooy jël jaamam di ko di xool lu ca neex mu koy teg ci loxoom ndax yàlla muñ doon may ndam suñu xañee tamit dañ koy sante waaw ndax am ak ñàkk la waaw loolu loolu moo doon waaw victoire yëpp ma neex wax dëgg yàlla yëpp yëpp yëpp yëpp ma neex waaw yëpp a neex moom wax dëgg yàlla waaw ñu ngi préparé combat le 12 incha allahu rabi le 12 février waaw di di ci woo waa yaraax gi yëpp gars yi moom ñoo ngi koy préparé bu baax a baax a baax a baax muy waa yëngal baaraay xam nga ñoo ngi koy préparé bu baax marieur yi xam nga mool yi tamit ñoo ngi koy préparé cag-cag yi xamante ni ñoo nekk yaraax cag yëpp ñoo ngi préparé combat bi xam nga ak waa jaaykatu glace yi ñoom ñëpp tamit ñoo ngi koy préparé waaw ak ferrailleur yi xam nga képp ku nekk yaraax rek bés bi yaa ngi koy waaj te le 12 na xam ni ga yi waa yaraax pare nan te ngi waaj bu baax baax a baax a baax yéen ngi ci biir waa cag-cag yi ñëpp ñoo ngi ci biir ñoo ngi koy pare bu baax njaay mhm. bu yaraax waaw non non falaa musa nekk falaa commencé falaa doore falaa déggee daali quoi musuma dem beneen écrit bu du écrit Père Mbita Ndiaye bu yaraax waaw nekk fa ak samay grand ñoom Fall yaraax ñoo ngi fa samay doyen ñoom Africa ñoom Jama Noir ñoom Baara Mbel Soop ñoom laay séeréer xam nga ak booy séeréer yëpp gars fala nekk waa ñoo fa bu baax a baax di leen nuyu au passage ñoom bébé ama ñoom ñëpp waaw. waaw waa koñ moom dama leen woo ñu gën a génn rek waa yaraax li ko dalee yaraax képp xam nga waaw li ko dalee kasanka yaraax képp entroit trois jaarawaali mbaxal sanci montagne euh, waali daan xam nga belleer cité Dalifort xam nga mbaxal ko mbaxal waaw ginnaaw raay waa Maris waa Cité Dalifort xam nga beleer di woo bépp ay see boo xamante ni yaa ngi woo yaraax fii nii Weuz Diambar moo ngi lay woo nga ñëw jàpp si kombaa bi xam nga ngeen ñëw ñu génn si en mans dem supporter seen doom yàlla may ko ndam di woo waa yara waa Ngaay Ngaay nga xamante nii mooy dëkku cosaan bi ak bépp tund kajoor bi nekk foofu yëpp Weuz Jambaar mu ngi leen woo ci combat bi ñu ñëw jàpp si bu baax a baax a baax xam nga ñu ñëw jàpp si bu baax di woo war gaynde yi nekk ngaay yëpp na ñëw jàpp si waram jakarta yi fa nekk aussi xam ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp bu baax dawalkatu sareet yi defarkatu dàll yi ñoom ñëpp di woo ñoom Talla ñoom Pablo ñoom Pablo ñoom Bamba defet xaarim defet yow mafia bi yaa koy jiite vieux woo la maa ngi lay woo ci combat bu baax waa ngaay la waaw laat laat faramaare tamit xam nga defarkatu dàll bu mag bi ñu ngi lay woo ci combat bi nga ñëw xam nga ñoom njaga city classe ñoom ñëpp ñoo ngi leen di woo xam nga woo gaay yëpp ñoom Ahmed Baye Daaru borom Brésil Ahmed Baye Daaru borom Brésil ñoo ngi lay woo ci combat ngeen ñëw ci combat bi xam nga di si woo ñëpp daal combat bi daal waa Yaraax boobu ma kenn staff bi di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo Saataala Mbay Cheikh Garga Diouf Siri Diagne Daouda Diop Daouda Diop di woo ñoom Jibi Konté xam nga ñoom Sadd ñoom Xaadim ñoom ñoom ñoom Coumba Ndoffène xam nga ñoom Ibra sama mag Ahmed sama rakk xam nga ñoom Doudou si ñoom Nalla Binta samay mag ñoo ñu ngi leen di woo ci combat bu baax di jël nu di woo waa yëngal baaraay ñoom Mambay Jaw bu ndaw Fallou di jël nuyoo bi di ko teg seen loxo ñoom ñoo gérer mafia yëngal baaraay bi waa marieur yi fi nekk yëpp tamit ñoo ngi leen di woo ak mool yi yëpp ñoo ngi leen di woo waram jakartaay ñoom Mamar xam nga ñoom Baye Seck ñoom góor gi waaw di nuyu ñëpp di nuyu sëñ Abdou Lahad Dieng ñoo ngi koy ziar bu baax a baax suñu kilifa boobu waaw ak mafia Maroc bi ñoom Moussa Gaye ñoom Serigne Gaye ñoom Gammu xam nga ñoom Galas Dia ñu nekk foofu sama mag Seydou si yi nekk foofu mafia Maroc bi képp kuy def transport Maroc Sénégal rek Weuz Diambar mu ngi lay woo ci combat bi waaw ngeen ñëw jàpp si bu baax a baax a baax baax waaw di nuyu ñëpp nag waaw su ma limee rek damay ñoom chaque jour foo leen seen seen ma waaw ku si mel ni Thier borom bul juum. combat bi moom nekk na bis bu ñu ñor nekk na tamit bis boo xam ne lu mu laaj dañ koy def waaw euh, lu mu laaj rek laa wax na bi bi lu mu laaj dañ koy def lu mu laaj rek dañ koy def diwoo di woo waa Touba waa Ndiassane waa Kaolack waa Tivaouane waa Ngaye Mexe waa Cilmaxa Mbakol dëkk bi ma dëkk waa ñaxal kar libaas ah, waa meew nu jaxate képp koo xam ne yaa ngi ñuy ñaanal rek ñu ngi gis ñaan te ñu ngi naan amin combat bi sunu combat la du lu nuy perte sawaay le 12 février bu neexee yàlla lu fa neex sawaay a koy def insha allahu rabbi yoox la jëli ko nag di ko wax ne ko carrément li ma koy faral di wax rek message bi ma ko chaque jour vocal bi ma koy envoyé benn la duma taxaw ci buntu kër kenn man gentleman laa damaa yor soxna bàyyi ko kër ga bu may topp ci ginnaawam dafa am lu may toppee ci ginnaawam laaj ko duma ma tàllal kenn loxo man damay focus ci li ma war a nekk nekk ci li ma war a nekk moom rek laay topp ci ginnaawam ku ma gis may ànd ak keneen dama ko wax du ma topp keneen moom kase na bàyyi xel ne maam Thierno moom kase lay topp ba pare balaa daraa xew bis bi nag dama koy ñaanal yàlla defal ko jàmm xam naa li ne ci moom wallaahi asim li ne ci moom génneegu ko billaahi wallaahi taala xam naa qualité yu baax a baax a baax yi ne ci jafé jafé du mëna ñak ay yi gaay di wax yoy du ko sax topato da ngay dégg ay yent tëraay yoy bul sax du ko sax régler lér na mané man li ne ci waji ji ko billahi ta bala bala dous inshallah yalla ñu ci yalla yobu ci jamm kase wo jambar kase ha ah. di am mbégte ak contentement bu mag wa comme bis bi mom li si des bareetul ndax le 12 la parce que jëru wax bu bëri xam naa ne daal nañu xam ne dina neex incha allah dina neex ca ñu ngi ñaan yàlla mu ànd ak ñun ndax comme xale la nekk si yoonam amaana nag yoon moom du ñàkk ay ay ay métti mais olof dafa am lu mu wax dafa ne bu naree neex depart dafay métti comme yàlla dogal na am na ay tolof tolof yu fi jaar nañu jàpp ne loolu lu ñuy seetal la rek li si kanam moom mooy daax te incha allah le dina leer. bu ñu ñëwee dinañ xam ne ñëw na ànd na ay mbokkam te nag ànd ak say mbokk doo wéet loolu la ñuy wax booy Niang hmm? waaw ñun moom euh, dafa am nu ñu nu ñu baaxoo di dem dafay dañoo nekk ñu nga xamante ne du ñu dugg si loo xam ne dañ si joxe tuuti di am lu ñuy bàyyi noonu lu ñu dem dañ si dem ba mu jeex man daal li ma koy lancé appel moom booy Niang na xam ne lu mu defoon doyul na ko yokk ñun pare nan te incha allah le douze dina neex dina neex yi rax dina yëngu. loolu lañ koy loolu lañ koy wax te loolu mooy am incha allah na gën a waaj bu baax rek xam ne day ñëw daanu rek incha allah yàlla jël ndam li yàlla muy jàppal daan yàlla jël ndam li yàlla daan ba jàmbaar lu ma koy wax mooy da kay gargal wa jàmbaar